yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarhiiban bilaa adadi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. mbokk ñu ngi leen di nuyoo fii ci jumaay Touba ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne daara Muxaddamatul Xidma mu ngi koy taxawee euh, ci waxtu ne saasu su ne euh, ci barab bi rawatina ci weeru koor bi. mu ci am ay waxtaan yu am solo yoo xamante mu ngi ko fay amal di ci faral di woo ay mbokki jullit yoo xamante ay mbokki taalibe yoo xamante ni dañoo am wàccuwaay ci barab bi tey jii nag mu wowoon fi waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom itam ñu ñëw fi délégation bu am solo boo xamante ni macha allah li li muy firndeel mooy Euh, yoon wi ni ka nga xam ni nga xam maam Cheikh Ibra noonu la ko kii woon ñoom itam ñu ngi koy dundal bu baax a baax rawatina barab bi nga xamante ni euh, ku tëdd ki fi la tëdd ñoom itam euh, ñu ñëw bokk ak waa daayira Moukhaddamatoul Khidma waxtaan yu am solo yi nga xam déglu nañ ko fi te ñu doon waxtaanee lu aju ci sëñ bi sax nag nga xamante ni macha allah fiñ tombee dafa dafa am solo lool biñ ci noppee itam ñëw nañ ci ndogu yi Euh, am na lu ñu fi gis am na lu ñu fi seetlu ak relation bi ñu am ak daayira Moukhaddamatoul Khidma yooyu yëpp sëñ Assane Fall dina ci ñëw wax délégation bi mu àndal ba noppi am kaddu yoo xamante ne ko joxe incha allah sëñ Assane asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. alhamdulilahi lazi minna talab iqlaasa sa'yin wa muraa'atal adab man yansurul xuluuba wa sharaa'ira doona lazi minna yakunu zaahira suma salaatu mahsalaamin yatbahu ala allazi fi naa xadani shafahu man bi fadaa il wadaa taala wa an raza ili radaa taala muhammad al kaashifi an naa xumma wa alihi wa sahbihi wal umma mbokk yi ñuy seetaan wala ñuy déglu suñu kàddu fu ñu mën ci biir réew mi bitim réew ñu ngi leen di nuyu ci ndigalul wala ci kàddu sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ko wér waaye di ñaanal tam jëwriñam bi sëriñ Muntaxa Bachir suñ borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba mbooleem naa la ñu nam ma liggéeyal seen ñaari maam ya ngi def ca ba def ca lu kawe seen i di sant bu baax ci jotaay bi nga xamee tey suñu kilifa yee di sëriñ bi dénk war may te nga xamee ne sëñ Assane mooy njiit la yebaloon ñu fii tey ngir ñu ñëw fekk jotaay bi nga xam ne dañ koy fekke ngir euh, waxtaane taarixu dëkk bi ci cosaan waaye itam taarif téere bi nga xam ne mooy Matlabul Fawzayni te dafa mel ne li sëriñ bi naaloon wala mu mébét ko lépp ci la ko dugal ci la ko dëxëñ soxla woo lool nag mel na ne li ni ñuy xam baax na waaye daa mel ne xam lu téere bi itam farata ci ku bëgg a dëkk tubaa te nam moo war worma yi nga xam ne sëriñ bi da ko fi doon sàmmloo waaye itam ku bëgg bokk tam maanaam participer ci projet bi nga xam ne sëriñ bi mébétoon na ko soxla woon na nga xam lay téere bi ak li ko taxoon a jóg tey nag ñu fekk fi loo xam ne euh, wax dëgg ndaka jekk sax noo xam ne fii moom lii la baaxoo ndax wëli baana xayru shay'in sëñ bi moom lu baax yëpp suñ borom da ko biralal waaye nag bi ñu egsee nag li nu suñ ay bët wan bokkutoon nag leen jortoon li ci gën a yéeme mooy yu bari yi nga xam ne sëñ bi lu ci ne da caa wax lu am solo waaye yéen ñii di moom muqaddimatul xidma ngeen taxawee yëpp asalawaatal xam si daaban yaa hakim loolu fes na ndax buñ tolloo ci waxtu yi ñuy xéewlu sax bu jul bu waxtu julli jotee ñëpp jóg dem julli ji kon sëñ bi ñaanam googu yéen bokk ngeen ci ñi koy dëggal sëñ bi tam waxoon lu am solo da ne su kàddu yi jëmee ci suñu boroom ak cant la waaye bu jubloo nit ñi ndigal la ndigal yooyu yéen a ngi cey def seen kéemtalaay kattan waxtu wi tam waxtu yëpp baax waaye waxtu koor ku ne xam na ne ak jagleem la euh, ama siyaamu fa huwa min afdali tam talabta bi bihi wa ni'ama li anna fil jannati baaban laa yaqib fii si ahli siyaami fantasib loolu biñ ko gisee kon day mel ne yi ma bëgg a waxoon léegi mooy yu baax yëpp te war a dajee tey biñ ñëwee fi suñ bët tege na ci la ca doy waar nag mooy dañ fa fekk suñu alal luñ moom loo xam ne dañoo jàppoon ne ñun dong ko am mooy lii nu fekk mooy liggéey boo xam ne euh, bët bu ci tege sa xol sedd ndax rafetaay bi ak taar bi waaye boo gisee nag njëlbeenu li ma ubbee ne sëñ bi moo ne euh, alhamdulilahi lazi min naa talab iqlaasa sang yin wa muraatal adab loolu moom du lu ñuy wax waaye boo jàkkaarlu jëf yi xam ne maintenir nañ condition yëpp la ci gën a neex nag mooy sëñ bi loolu daf koo layal ama sadaqatu maal infaaxi fa jamaal xayraati bi tifaaxi ka kulli ma yakunu nafxal muslimin wa silati rahima aidan kullahin wa xiila in adari yowmul baari wa duriba shiraati fawqa naari wa kaabadal wara jawan wa xumma naada munaadi ayna anil xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain fa yumuruuna li jinaani musriin bi ay yuxaala lahumum jon lahumum dol janna bi xeeri mi anatin wa xeeri fitna faqdimhum turran li wasillahi faqat bi laa manin wala tanaay faqdimhum mooy waa muxadimatul xidma faqdimhum turran li wasillahi loolu moo ci gën a neex ndax bi ñu defee wër bi ñu wër fii maanaam lim ñàkk lim ñàkk am istisna nga xam ne eh, doo xamee ñu fi war a toog ñu fi war a toog loolu mooy moo ci gën a neex ndax loolu moom mooy jëfi suñu borom dëgg dëgg joo xam ne yàlla rek ko tax a jóg feenu jaar ban fa jaaree jetaa yi nu gis xam na ne wut leen xaaj wut leen seen waaye da ngeen di wuyu yàlla ci wooteem boobu mooy jëf jëm ci moom rek loolu nag sedd suñu xool ndax dañoo defoon loolu suñu alal la ñun loolu ñu dañoo defoon na ngir noonu la waaye nag liggéeyu sëriñ bi barkeel gi ak nangu gi day tax euh, fii tam dafa am dafa am cëslaay xam nga nee nañu bi ñuy defaree jumaa ji ba noppi sëñ Fall dafa woon ne soror bi Cheikh Fall la ko tuddee waaye loolu damaa jàpp ne nag ñooy waay mu xadamatul xidma ndax lépp bépp barab bu ñu defar ba mu noppi dafa am lu ñuy wax maintenance mënu koo ñàkk te loolu Baay Faal lañ ko miine woon moom lañ ko xamee kon ba ci waa Muxaddamatul ma nekkee ñoo ci wutu maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax liggéey yi lënkoo gi mu lënkoo ak jàkkaarloo gi mu jàkkoo ak duggante gi mu duggante loolu moom bokk na ci xar baax yi sëriñ bi di def ndax ñun tey bi ñu fi gisee bi ñu fi ñëwee suñu bopp rek lañ fi gis te xam naa ne fee ñu nekkit euh, la ñuy def ni mu niroog lii dafa mel ne ñëwoon fii ne rek moom li ci amar solo lool nag mooy li nga xam ne lott nañ ci ndax sëriñ bi ni ñu defal tey jii xaside gii di mat la Matlabul nii loolu wax dëgg fa yàlla euh, ñëpp a ci amee ak cant di ko ci ñaanal li ci sëriñ bi diggee yàlla bu ko ci dara ump ak mbooleem ñi ko doon dégg ak ñi nga xam ne euh, ñi ngi ko doon seetaan waaye itam nag euh, di ci soññaan ñëpp nag ndax ni ñu waxee woon rek bu xasee jëm ci suñ borom ak cant lay tudd waaye nag bu jëm see ci nit ñi ndigal la war a doon Euh, boo xoolee nag bi ñuy bi sëñ bi euh, tëral projet bi euh, dañu wax ne asairu ta assaru bil bia maanaam dafa am yoo xam ne delluwaay yi ji ngay xam la doon jeexit foo la doon jeexit am foofa bu ñu xoolee ne ndegment yi sëñ bi doon waxal bu ñu toxoo dafa mel ne jikko yi dañ ko fee ba jikko yi nag la nit ñi amee mooy Euh, wa charix wa taarix wa aqida wa naafis ak yooyu sëñ bi teqantal léegi rek yooyu day mel ne ay jikko la yoo xam ne bu fekkoon ne euh, ci ndeg ment lañ ko doon xaar dafa mel ne nekkatu ci ndeg ment yi waaye léegi nit ñi ko dëkk ci la ne. loolu nag kon day mel ne li sëñ bi waxoon ne kon digal yi day dellusiwaat nag ci noonu bu boobaa nag day mel ne ñun ñoo war a góorgóor nag fexe ba du nu amee melo yooyu waaye nag nañ fexe ba mbooleem ñaan yi sëñ bi ñaan. nu fexe bokk ci ñu koy bénéficier waaye tam bokk tam ci ñi nga xam ne tam ndigal yi muy santaane kenn duñu ci man loolu nag su amee euh, li may waxoon léegi ba euh, alhamdulilah lazi min naa talab iqlaas saxin wa muraaxata adab loolu mooy war mooy Tuubaa ndax day mel ne lépp day delluwaat nag ci delloo ko suñu borom mi ko moom te mooy sellal jëf yi nga xam ne moom daa sàkk ñu sellal jëf waaye itam nag sàmm teggi nii loolu boo amee mooy war mooy Tuubaa ji tey ñu taxoon a jóg wax dëgg yàlla ñun ñu fekk leen ci nag fekkin woo xam ne wóor nañu wóor yàlla ne li ñu fekkee fii bu doon ne moo fees moo moo moo moo fees dell dëkk bi sëriñ bi du soññee war mooy Touba ndax dana xam ne ñu ngi ci. kon nag mat na liggéey bi fës ba ñëpp gis ko def ko tam mu dee ab roy royuwaay boo xam ne incha allah taala képp koo xam ne sa ba tege na ci loolu dana la def ak waar. dana def ak jàjji waaye itam dina la dimbale ba nga xam ne du noonu nii la bëgguma guddal ndax li ma fi fekk euh, ëppante nañu ci teg yenn kàddu daa am borom xam-xamu arab yoo xam euh, yarta ibu sujaaju isan faa wa yango du cheikh fi saba bi farangati sëñ bi sëñ bi doon def uh, taarif bi sëñ Mamor li mu wax fii di ci tegaat dara sax ndigal la ndax ndigal moom ñun mooñu ñu booleeg liggéey bi tey day mel ne lépp loo ci xam ne rek Euh, maanaam ci jëfle lay dellu ñun dañoo jàpp na loolu moom ndax ñun moom ay mafon lën la ñu ñuy jëfloo nanu gannaaw nag ñun ñëpp ay ñuy jëfloo lanu bu ñu bu ñëwee ba fi ñu sàkkuwaat lu mel ne lii duñ ko gàntal waaye ndigal li amoon daal mooy ñëw fekk jataay bi rek ngir tey li ñuy wax ñu ñoo ko war wax bu amee ñu ñu ko waxal nag te mëne ko nii ñu ko mëne xamee ko nii ñu ko xamee loolu moom mboolem jabatu Cheikh Ibrahima Fall gépp ñu ngi leen ci amel ak cant te di leen ñaanal liggéey bi ngeen taaw ko ba yeggale ko sëñ Tuubaa fu mu ko yéene woon te saa bu ngeen gëstoo